Alioune Ndiaye nekk responsable ci Mouma Awa maa ngi leen di sant di leen gërëm ci seen teewaay li ñu jàppoon mooy président monsieur le maire Ousmane Diop dafa waroon def point de presse parce que dañoo jeexal collecte de parrainage ba donc mu woote woon ci siège pour joxe ay denrées ndax korite gi dëgmal si yàlla nag mi nga xam ne dara tëwu ko ñu woo ko pour une urgence donc mu dem ma war a wax ci turam muy lu diis parce que lu la bett man la te dañ ma bett mais daal li ma mën a wax mooy nit ñi liggéey nañ liggéey bu mucc ayib parce que au début moom daf ni woon bu sañoon dina am vingt mille parrainages mais yàlla def na daal liggéey nañ ba am nañu euh, ñaar fukki junni parrainage ak ñeenti junni fukki junni parenage ak ñaari junni ak juróom-ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñeent bu ma juumul muy donc douze mille neuf cent dix boole na ci nag ba mu koy joxe tam mu yëkkati un million teg ci ni comme caution day am moom dina jël ci ñaxam dugal muy loo xam ne nag man jàpp naa ni bu njëkkewulit bëriwul di ñu koy gis kon nag kooku day nit koo xam ni la nga xam ni mooy doom mooy liggéey Europe ñëw séddale sama askan delluwaat wuti nañ ko ko nangul muy koo xam ne aussi ku jara jàppale la ndax ki nga xam ne amoo benn ndombal tànk di jël sa ñaq di joxe bis bu la yàlla dénkee loo xam ne danga koy boole li ngay ñaq kon askan wi dinañ ci gis seen bopp mu mel ni donc kon ki lay jox añ bu la nee dinaa la jox reer nga war koo gëm. Ah, waaw loolu nag euh, bëggoon naa lool jox leen primeur bi mais dama ko koy bàyyeel comme moom li ko jàpp bu ko bàyyee bu ñëwee dina def point de presse incha allah bu ñëwee moom dina ci gën a xuus jërëjëf. waaw donc euh, je monsieur Alioune Ndiaye responsable du mouvement AWA nous voilà réunis ici au siège du du mouvement pour un point de presse. Mais il s'est trouvé que le président, M. le maire Ousmane Diop, pour une urgence, n'a pas pu honorer son engagement. Alors, il me revient la lourde responsabilité de faire donc une déclaration en son nom. Et comme vous le savez, je suis pris au dépourvu et la responsabilité, dit-on, ne se décrète pas, elle s'assume. Donc, bon an, mal je vais essayer de relever le défi. Donc, on est au terme de notre collecte de parrainage avec à la clé une distribution de denrées. Et je voudrais à cette occasion remercier tout le monde par rapport donc à cette forte mobilisation.

atteint comme objectif, mais on ne doit aussi cracher sur cela quand on sait que le délai imparti était plus ou moins court pour faire ce remarquable travail. Est-ce que euh, euh, Je ne saurais le dire. De toute façon, euh, il est retenu un point de presse dès son retour et il sera certainement habilité à se prononcer par rapport à ça. Ah, ah,